asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, mbokk yi nekk ci Hourasoul Irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm moo xam mooy Hourasoul Irada bi nga xam ne mooy Hourasoul bu njëkk bi te Sëriñ Abdou Latif jiite ko moo xam muy uras bu mujj bële nga xam ne bay si daara wàdd moo ko jiite ah, te di fa def ay waxtaan yu am solo léeg-léeg ma dem fa daal di yëngal ko ndax man xam naa ko sama bëggee mu wax lu bëri rek dama koy dem yëngal ko benn yoon mu tabli mu mu leer bu maanaam bu bëggee giim dama koy xambaat moom itam ma ngi ci uraas boba lépp lu mu man ma Ah usas alin leeral waduh? atas Badara Wade tasawuf dafa def lo xamne ne daan dund deug dañ ko bindut woon ndax seen dund ga mo leen may ñu di ci boole am mbind ndax seen programme dund ci seen diggante ak seen boroom tey it di loo xam ne yër ko rek taxut koo xam waaye yëg ko moo tax nga mën koo xam même sufiyanke yi nga xam ne dañoo bind sax li ñu bind boo toxewul boo toxe ci ñoom Eh, daanaka kiifar nga koy def ndax ñoom dañuy wax ci biir yoo ngay wax ci biti ñoom dañuy wax ci xol yoo ngay wax ci jëmm ñoom dañuy wax ci li ñuy wax xaqiqa muy ihsaan yoo ngay wax ci sharia muy islaam ndaxam su fi yànkee imaan lañ njëkke ak lislaam ba noppi door a dem ci ihsaan ihsaan jooña boo gisee mënuñu koo bàyyi wala si ne jaadu fii naa lana di yenn um subulana wa inna la alama al al mufsinina maanaam ihsaan jooju dañ ko mënta bàyyi ndax ànd ak yàlla daa gën ànd ak lu nekk te sabru ak ihsaan moo koy may moo tax léeg-léeg ñu dugg ci biir tasawuf jimte jimce jimce tas ay mbir yu bari leeral ci ay nit lu ak azikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnauna xam nga dafa am yoo xam ne dang koy xam not ci walé ko ngir bëgg muccu ya rubba jaw hara ilmin law abuuxu bii la qiila innaka mimman ya'budu yacbudu lwasana halla rijalun saaliuuna dami yarawna akhba ma ya'tuna u xasana yaa rubba jaw hara ilmin law abuuxu bii la qiila innaka mimman yaabudul wasina xam nga loolu euh, am na xam-xam yoo xam ne te soo ko waxee ci fuñ ko xamewul euh, dañuy wax ne mi ay ay ay ay ngay jaamu maanaam li nit ñi nanguwut mooy xam-xamam tasawuf day xam-xamu boppam boo xam ne mi ngi mel ni riyadiyat aljabru mécanique ni ma la ko mën maanaam riyaadiyaat boo ko jàngu bëgg ñu bind seen siin ak seen i miim yooyu seen i yooyu eh, di ko di def ay racine carré ki ko ak ki ko ak ak muy mu sallas ak lu kenn xamut te jànguloo ko yow da nga naa ñi lii ñuy font lii lii du dara fekk nag ña ko jàng xam ko ñoom bu ñuy bind seen araf yooyu ak seen lettre yooyu ak seen chiffre yooyu ñoom ña nga xam lan lan lañ ci nam noonu la tasawuf mel boo ci duggulee ah doo dem pour nga débat ak ñoom doo dem sufiyanke yi nag wax dëgg yàlla ah, dañoo gàttal rek xam-xam bi gàttal ko gàttal talxiis ko talxiis goo xam ne ah, yow yaay mën a dellu ci alquran xool baat yi wax nga dem ci alquran fekk fa dalaa iliya waaye daanaka ñoom li ñuy wax di génne alxuraan bariwul xaw ma ibnul jawzi ibnul qayyim defe naa moom la ibnul qayyim ki bind ki bind ki bind eh, madaarij saalikiin de moom bind na ci tasawuf lu xuuta xuuta waaye nag moom ni mu ko defee ñu bari ci suufiyanke yi defewuñ ko ndax xam kooku bind madaarij saalikiin boo ne suufiyanke rek gars yi ni déedéet te li mu jàngale ci madaarij saalikiin lépp su ah, ah, xam-xam tasawuf dong la waaye at taxal lii moo di toxu ci wolof at taxalli moo di toxu dafa am ci nit yàlla yi nit koo xam ne ba mu demee dugg ci diine suubu ci yoonu tasawuf te doonoon ci askan yoo xam ne dañ daan tëgg ay lënd ñii dañoo xar seeni ndënd jox seeni jabar ñu togge ñii dañoo dem suuli seeni ndënd ci àll ba ndax du deret du yàpp du luñ doon ci maam Adama ay xaralaa ki pexe rek la bañ xamee ne lii nag du diine dañ ko bàyyi am na ci koo xam ne sax ba mu koy def da doon jabar ci da ko doon wax mu ne ko ah, ah, ku tuub toxu ku dangay toxu takhalli moo di juki jóge ci li nga nekkon bayiko ko dem ci leneen waaw takhalli moy sañ ci fenen non la ko bana misale waye nak takhalli tu tub fasiyene baña delu ci la nga bo la ko jeglu modi takhalli takhalli nak moy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 loolu moo tënk wirdi ci nekk ci tarixe yépp looloo ko tënk boo waxee gars yi nag ñu ne wirdi bi daala te boo leen ne astaghfirullah lu mu doon ñu ne loolu yàlla ko digle ci alxuraan ko digle ko def bukratan wa asilan bi daala léegi lay woowu ñi ko bi daal fan lañ ko jël jëmmi istixfaar yàllaa ko digle jëmmi salaatu bi yàllaa ko digle jëmmi laa ilaaha illallaah yàllaa ko digle def ko suba teel ak ngoon yàllaa ko digle léegi nag waaw ñu koy boole ni ko def suba ngoon gën a lii ay bidaa la waaw bu fekkee ne nga xëy na kon saaba yi ñoom lañ ko daawul def uskuru sikkaram mbooloo la uskuru sikkaram mbooloo la uskuru laa sikkaram kasiram ah yaa lim bi ñu koy def bu nit ki ne biddaa la kasiran yàlla kenn daa xam nu mu toll bu nit noonu un milliard de milliards laay def sikkur laa yi tamit ba tey kasiran yàlla kenn xamul mu toll moo tax bari ci yoo xam ne jëlut poñante ka xuttente ay baati boobu loolu dama noonu dama koy leeral rek léegi nag maa ngi ñëw ci al inaabatu fi xismil ahwaal ak al inaabatu fi xismil wilayaat ak al inaabatu fi xismil aqaayixi ak al inabatu fi xismi ni ayat bu ko defé inabatu daal jeex ñu delluwaat ca xismul bidaya jël ka top ci inabatu dox ak mom ci non batay ci bidaayaat la nek nekk egseegul ci ni ayat te diggante bidaayaat ak ni ayat nak juróom-ñetti xismu ñoo fi nek yu ñu ba ngi ci première classe ci alifun baawun kon ñu dem ci al inabatu dellu ci sa boroom fii xismil ahwaali ca xaajub melo ya wa iya moom al injisaabu moo di xëccu comme jës bul xulub waaw al injisaabu xëccu ilaal janaabil ilaaj dem ca wàll ga yàlla féete génn ca wàll ga seytaane ak àndina ak bokkan ne waaye nag dalay xamal ne al injisaabu nag ilal janaabil ilaaj yi xuwatul xubb moo koy maye kàttan ak yàlla war wuloo bi nuuril jamaali nga ñàkk sago ci leerug taarab yàlla li ci detti shawqi ngir taru bëgg alxubbu wa shawqu bokkuñu alxubbu bëgg rek lay tekki waaye nit ki mën ngaa bëgg dara te ne tekk nit ñi duñ ko xam ci yow waaye nit mën ngaa bëgg dara te buñ ko tuddee rek nga xàqataay boo ko bëggee xam da ngay gis seen soxna rek sa doomu bàjjen wala sa doomu ndey eh, rek nga ne ko giñal giñal Euh, da ngay giñ rek ne sant nga wax ko sant borom këram sant borom këram na ko koy wax maanaam nga ne ko giñ rek ne sant Seck waaw te fekk borom këram Seck la sant day reetaan ba bala mu laa ba day day reetaan ba noppi wala mënoo fexe ba du reetaan waaw amul benn jigéen boo xam ne da ko gis nga ne ko euh, nga wax ko sant borom këram ne ko. Eh, giñal ne santu sa santu borom kër nga waxtu nga wax sant bi ne ko nga teg ci nag ne ko te soo ko waxee day ree balum kaa def maanaam shawqu mooy bëggu goo xam ne day feeñ ci kanam ngir ak ñàkk sagu kon al inaabatu fi xismil ahwaal mooy al injisaabu bippu ilal ilal janaabil ilaahi jëm ci wàll nga yàlla féete maanaam jëm ci sa borom rek fi xubatin ubbi ci kàttan ak bëggeel bëggeel moo la xëcc wal wuloowu ak ñàkk sago bi nuuril jamaal yi ca leerug yàlla ga isidati shawq ngir tarak bëgg gu ëpp ga boo demee ci al inaabatu juróom-ñetteel moo di fi xismil wilaayaat yi moo di al inaabatu lan lay tekki ci xismul wilaayaat mu ne la wa iya al istigraaxu fi bihaari simaatil jamaali والانقطاع عن الأخيار لهتك أستار الجلال الإنابة ديالو في قسم الولايات تخاج ولاية موي الاستغراق لا نور لا في بحار سيمات الجمال تلير ملوي تارو ربي wala inqitaawu ak dog anil axyaar yi ci leneen lu dul moom jublu ci moom képp li at ki astaaril jalaali ngir moytoo xotti eh, eh, maanaam kiiraayal màgg ak yàlla xotti kiiraayal màgg ak yàlla nag mooy ngay xool keneen ku dul yàlla di limaale keneen ku yàlla di yaakaar keneen ku dul maanaam tasawuf dëgg dëgg dëgg dëgg eh, moo gën a ñàng sax ak ibaadu waaye ndeysaan nit ñi xamuñu ko al istigraau fi biaari simatil jalali al inabatu ci wilaaya mooy nga lab ci biir géeju meloy taaru borom bi dog ci leneen lu borom bi ndax ndax di lima leneen lu borom bi day waral xat ku astaaril jalaali boobu jeex ñu dem ci juróom-ñeenteel ba mu di al inabatu fi xismil aqaaiqi dellu ci borom bi ci xaaju xaqaa'iq ya wa iya alliyaasu bi nuuri ahdiyati zaati min istilaa'i saltanati saltanati anwaari kasrati sifaati yi al inaabatu nag boo ko xamul ci xismul xaqaa'iq mooy làqu ji alliyaasu làqu ji bi nuuri ahdiyati saati ci leeru kenn jëmmi borom bi wastilaau saltanati anwaari kasrati sifaat yi ak maanaam kilifteef moomeel nguuru leer ak bari meloy borom bi maanaam yàlla melom yi dafa bëri te melo bu ci nekk daa amuk leer te leer googu leer yooyu dañoo bëri te leer yooyu dañuy def istila dañoo am saltana te dañuy def istila maam dañoo doon ay buur te dañuy coloniser al istilaau moo di as saytaratu yaa ngi dégg léegi nag soo bëggee mucc ci saytaratu saltanati anwaari kasrati sifaat yi dangay def da ngay def liyaas bi nuuri hadiyati saati leeru kenn ak yàlla moom mooy dox sa diggante ak barik leer melom yi not not la ñu dem ci fukkeel bi mu di al inaabatu fa xismi ni ayaan al inaabatu ca xismi ni ayaan fi ayni jamci lwujudi walxalaasu an rasmi taayuni bi mahdi shuhudi inaabatu ci xisbu li ayaat mooy raaf seey jeex al idmi laalu weer da koy def lu dul weer it da koy def mooy jeex mooy talaashi waaw mooy jeex fii ayni jamil wujudi ci jëmmi booleeg am gi boo déggee nag ñu ne jëmmi booleeg am gi am nañu yaakaar ne amuk amal amalaa kon bee waaye am gi am ak amal la jeex ci sa bopp jeex ci sa bopp boole sa bopp ci mbindeef yàlla yi fexe ba mucc ci melaw jëmmu ngir ngir jeex goo jeex ci gis sa boroom jeex ci sa bopp jeex ci say moroom mooy taxe egg ci sa boroom jeex ci sa bopp jeex ci say moroom moo tax ngay gis sa boroom jeex ci sa bopp nag jubluma ci bëgg sa bopp ba jeex ca tàkk déedéet jeex ci sa bopp maa ngi ci jublu selanlu ci sa bopp dootu exister loolu mooy jeex ci sa bopp jeex ci say moroom te mooy ay ni jam il wujudi maa ngi ci jublu jeex ci lu yàlla bind nga jàpp ne lii yàllaa ko bind ab jaamam la loolu moo di jeex ci say moroom jeex ci sa bopp jeex ci say moroom moo tax egg ci sa boroom loolu moo di al inaabatu del al inaabatu dellu fi xismi ni ayaati ca xaaj xaajub eggal ba waaye moom al mi laalu mooy far fi ayni jam il wujudi ci jëmmi dajeeg am gi jàpp sa bopp ne dama dañ ma amal ñeneen ñi may gis ñëpp dañ dañ leen a amal te amalkat bu mag bi nu amal moom lañu war a suivre moom lañ war a topp wala xalaasu ak mucc an rasmi taayuni ci melaw jëmmu manaman mooy rasmi taayuni bi ma di suudi ca gis ga ngay gis sa boroom ba dootoo gis sa bopp doo gis say moroom loolu mooy jeex ci yàlla jeex ci yàlla mooy fàtte lépp ngir moom waaye du caagee nag jeex ci yàlla mu mel ni nga jël suukar daf ko ci ndox mu seey dan mau di kota kaya di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi